pour intervenir. asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay Sadio le Sénégalais de Paris comme da nga le Sénégalais d'Allemagne. ok waaw yo, yo, yo, Sénégalais de Paris. <laughs> waaw maay Sénégalais de Paris de Kaaw Sadio. macha allah lan nga waaw situation nationale doo bëggoon intervenir rek par rapport euh, bataaxal bi nga xam ne euh, kilifa ancien kilifa yi ñoo ko def maître Abdoulaye Wade ak euh, Abdou Diouf. Mm-hmm. Mm-hmm. doon na rafetlu bu baax d'abord ci seen initiative. Mm-hmm. ndaxte seen cër la en tant que ancien président donc xam nañ li ci nekk. dëgg la. et puis aussi ay kilifa la ñu mag lañu parce que tey moom Sénégal buñ fa magul moom xam nañu bokk nañu ci ñu gën a mag. Sur la forme, il n'y a rien à dire, mais sur le fond, j'ai mhm. comme l'impression que euh, l'être Bobra, c'est un peu partisan. Mhm. C'est un L'être Bobra, j'ai l'impression que c'est un peu partisan. Ok, c'est un peu partisan. Ok, ok. Wow, parce que nous euh, faisons d'abord, euh, Macky Sall, c'est quelqu'un de très proche de Diouf. Mhm. maître Abdoulaye Wade il a un enjeu il a un intérêt ci rapport élection yi. ok avec le cas Karim Wade ok. avec le cas Karim Wade. ok ok. parce que xam nga li may yaakaar en tant que ancien président li ñu war a njëkk a wax d' abord c' était des de la constitution. Ah, ah. maanaam ci lettre bi ñu réaffirmer quand même que l' de la constitution l' intangibilité des rendez-vous qui sont un pacte républicain. Ah, ñu fàttali la règle loi de la République et puis surtout les règles de la CEDEAO yoo xam ne ñoom ñoo interdire ku yàq ku laal ci ci code électoral de construction six mois avant les élections ok. loolu moom il ne rappelé nulle part. ok il ne rappelé nulle part ok. aussi yaakaar nañ war nañ am président ñu wax leen en tout cas comme mbir maa ngi ci yoon. Mhm. na nañu oote jàmm rek bu ñu oote jàmm ba ne leen comme mbir maa ci yoon nañu doog dama ba déglu li yoon di wax. ok ok.

ok ok ok ok. deuxième aspect du moi, Abdoulaye aujourd'hui est-ce que moom ci boppam. Mhm. man euh, je dis que je suis un et je le confirme donc depuis ma tendre enfance. Mhm. mais tey boo seetloo le njaaj bi yëpp ñoom que ko indi parti moo ko indi déjà. Mhm. avec l'affaire ok après après une commission d'enquête parlementaire mais commission boo xam ne yow ñi nga accusé ñoom ñoo ci commission bi ak accusateur ñoo nekk ci commission bi tamit. ah dëgg la <laughs> sama seen ab bari ñoom ñoo defaat encore appel encore noonu la ñuy toog ñu waxtaan. ñu defaat élection le quinze décembre. donc pour man vraiment wax dëgg yàlla moom xaw na tey sama sama sama xel de. voilà mais nag maa ngi rafetlu appel bi parce que Sénégal moom loolu la ñu xam parce que nit ki moom jëkkër ak jabar bu ñu xuloo sax dañu naan bon dañu toog waxtaan mag ak rakk kilifa ak ay doomam waa koñ bi et cetera loolu moom maa ngi koy rafetlu. d'accord si si voilà loolu moom ñëpp war nañ ko rafetlu. dëgg la. mais nak en tant que ay ancien kilifa rek de la république nak war nañu aussi ñoom apporter seen témoignage au conseil constitutionnel parce que chaque fois ñu ngi waxoon mais teg gis nga ba kilifa rek bo xamné ne. Mm-hmm. qui apporte son soutien vif franc et sincère au conseil constitutionnel nga xam ne ñoo fi nekkoon démb ak barki démb. deug la deug la bi di gañ ñoo fi nekkoon bi ñi di ñàkk ñoo fi nekkoon bi ñi di gañ ñoo fi nekkaat ñeneen bu ñu nekkaat aussi ñu apporter seen soutien. Mm-hmm. waaw loolu daal moom laa bëggoon wax pour kii li ci ci suñu ci deug naa ngeen wax la violence bu ñu defoon ci femme bi. waaw ci femme bi waaw voilà ma dégg bon xamuñu lu mu def y a rien rien rien qui justifie des coups sur une femme rien ne peut justifier dara. ok ok ak lu def ok. mais ngi dégg ak lu mënti def maa ngi dégg sànq ñu ne xamuñu de lu xew ànd ak moom wala lu lépp mhm. il n'y a absolument rien rien rien qui peut justifier des coups sur une femme. ok ok ok monsieur. voilà ak leneen lu mënti def am na yeneen sanction am na rien justifier la violence sur une femme déedéet. que ça soit verbal que ça soit encore moins physique. Ah, ah. waaw loolu moom defe naa dañ ko war a affirmer ak beaucoup de fi amul dara dara lu ko mën a justifier. waaw loolu daal laa bëggoon ngeen teel. am na solo xëy na j'ai pris la parole trop longuement. ayca am na solo monsieur Kawa Sow. voilà sénégalais de France intervention bi am na solo. jaajëf jaajëf. donc maa ngi nuyu soxla Anna di nuyu soxna di nuyu Ndofène. di nuyu Sarr di seen invité yi donc euh, ak euh, ñu leen di seetaan yëpp quoi. ah, ah, ah yow am yaa ngi suivre ayca ah, am na solo ñu jël keneen ñu euh, jaajëfal ko bu baax a baax moom Kaw Sadio le Sénégalais de Paris donc am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu dal di koy jël alo